gaa yi jóg nañu gaa yi jóg nañu deux ans yi yi jóg nañu kan moo génn. deux ans yi jóg maam loo maam laa seen noonu muy génn Washington fekk na ko fa Washington moo génnagul Fallou Diop moo ko war picc mu war rey gaynde Washington génn na waaye Perlefine mi ngi ci position bi Perlefine mi ngi deuxième position Perlefine Washington Perlephine Washington Perlephine Washington Perlephine Washington Perlephine Washington Washington moo génnagul waaye Perlephine dafa nekk sikkimu ko Perlephine dafa nekk sikkimu ko Perlephine daa sikkimu Washington Perlephine lum narati am na joge bi daanu Perlephine génn na nag Perlephine génn na

dem waaye Tawfekh génn na benn bopp ndax perle fi na koy ba mu dem am day àndaat ak moom doon benn fas am nañ doon benn fas ñoom ñaar perle fin Tawfekh yàgg na noo def nii am na lu muy am na lu muy signalé Tawfekh ki ko war am na lu muy signalé Tawfekh génn na Tawfekh génn na Tawfekh perle fin Tawfekh perle Perlefine ñëwaat na de moo génn ba Perlefine ñëwaat na perle 1650 mètres la ñuy daw bu mètres ñëwee Perlefine moo génn génn na mi mètres bi Perlefine moo nekk deuxième position génn na bu Amar Baaw Junior na bu Adama Baaw Elofine mi ngi koy raw na ko ma raw na taw féex gën na taw na Père ay lii ndax mbaa la ma woy ku baax ma bàgg ngër yi bii ni woowe Omar Ba wala kër dabul ci baax tey ji ma woy ku baax ma bàgg ngër yi biir ni woowe Omar Ba wala kër dabul ci baax Omar Ba woo tey ji ma woy ku baax